alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuuti rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddini wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi tedd yi mbokk way déglu yi ñun seen mbokkum daara ñun seen mbokkum taalibe mi ñooy ànd di sant suñ borom subhaanahu wa taala tey lool ñëw ci suñu daara ji di bokk jàng lu aju ci wàllu fiq lu aju ci wàllu fiq ci seen émission bi waaye ñu bëgg ko jàng mu doon ay bind fiq yoo xam ni ah yu tegu ci alquran ak sunna lay doon masail yoo xam ni dañuy jéem a bokk gëstu dalilam yu tegu ci alquran ak sunna waaye ñu jéem a seet la gën a lëng la gën a wér la gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi bu fekkee ni masala ba ñoom dañ caa wuute suñu émission bu njëkk bii nag ni mu tudd mooy aqsaamul miyaahi wa ahkaamuhaa xaaju ndox yi ndox mi ñuy jàppee wala ndox mi ñuy sango farata yan xaaj la am ak xaaj bu ci nekk lan mooy àtteem ñu ndox ñetti xaaj la almaa u tahuur mooy ndox mu laab te a laabal bu ñaareel ba almaa u taahir ndox mu laab te mënta laabal bu ñetteel ba mooy almaa u najis mooy ndox mu sobewu kon ndox ñetti xaaj la comme niñ ko déggee bu njëkk bi huwa al maau tahur wa huwa al maau tahiru fi nafsi al mutahiru li gayri turfau bihi al ahdaas wa najasat ndox moo xam ne mii moom ci boppam laab na te moom lañu mën a laabale leneen lu ñuy laabal ndox mooma moom rek lañ mën a jàppee moom lañ mën a sangoo farata moom moo mën a laabal am sobe ndox mu laab te mën a laabal nag làmboo na ay xeeti ndox yu bari ndox yu bari dina dugg ci biir ndox yu bari dinañ ko àtte wax ni mii daa laab te mën a laabal ba ca njëkk maa ul matar ndoxum taw ndoxum taw dafa laab te mën laabal qaala allahu subhaana wa anzalna min alsamaai maan tahuura suñu boroom azza wa dafa wax ni ñun ñoo wàccee ndox mu laab te laabal mu jóge ci kaw mu jóge ci kaw côté asamaan kon ñu jànge ci ni kon ndoxum taw ak nu mu mën a mel ak fépp fu mu jógee asamaan wàcc ci suuf rek foofa fu mu mënti doon comme ca kaw la jógee wàcc ci suuf rek ndox moom laab na te mën a laabal wa qaala allahu azza wa jalla wa yunazzalu wa yunazzilu alaykum min as-samaai maa'an li yutahhirakum bi mu ni sa boroom moo leen wàccee ndox mu jóge kaw ngir na leen calaabal kon ñu jànge ci ni ndox mu jóge asamaan laab na te mënta laab laab na te mën a laabal euh, kazalika bokk na ci buñ waxee ndox mu laab te mën a laabal bokk na ci ndox la cay dugg bokk na ci xeeti ndox ya cay dugg lépp loo xam ne lii ndox la woon mu soppiku ci anam gam nekki ndax ndox day wal ndox day wal mën naa soppiku ba doon lu congelé comme glace wala neige kooku su delluwaatee nekkaat ndox day laabtu mën laabal glace mu dellu nekk ndox seey neige li wutale galaas day metti day mel na xeer bu jógee woon kaw comme dal kaw dalay gaañ neige nag mën naa jalu ci ab oto te du toj pare-brise mën naa juugu ci kaw nit te du ko gaañ maanaam du du toj yaxam du dagg neige daal mooy galaas gu nooy moom bu seeyaatee nekk ndox day laab te mën a laabal an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaskutu bayna altakbiri wa bayna alqiraati iskaatatan fa qaala axsibuhu qaala hunayatan fa qultu bi abi anta wa ummi ya rasul allah iskaatuka bayna altakbiri walqiraa ma taqul qaala aqulu allahuma baacid bayni wa bayna xataayaay kama baacadta bayna almashriq walmagrib allahuma naqini min alxataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas allahumma ighsil xataayaaya bilmaa'i wassalji walbarad abu hurayra radiyallahu anhu nee na damaa julli ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba seetlu ni bu kàbbaree kàbbaruk xarmal day naan tekk ab diir bisma ni ko yaa rasulallah man de jote naa la sama nday ak sama baay loolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek lañ koy waxal jotee naa la jënde naa la sama ndey ak sama baay maanaam lu naroon na dal sa kaw yàlla na dal ci ñoom ñaar te mucc ñaari way jur am nañ wàccuwaay yu rëy ci lislaam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccuwaaye moo gën a kawe wàccuwaayu ñaari wayjur maa ngi lay jote sama ndey sama baay noppi gii ngay noppi ni tekki ginnaaw bi nga kabaree kabar armal balaa ngay jàng looy wax mu jàngal ko foofu benn ci du'a ul istifta yañ cay wax ni ko dama naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firi waxal ko ñaan gi ñun ñoo koy firi dafa ni koy dama naan yow yàlla yàlla nag ma sorel sama diggante ak samay ñaawteef ni nga sorale diggante penk sow yow yàlla yàlla nag ma setal ci ay bàkkaar ni ñuy setale yére bu weex ci taq-taq ci tilim yow yàlla yàlla nag ma foote ci ndox ak glace ak neige kon ñett yooyu mu lim yëpp dañ ci jàngee ni dafa laab te mën a laabal ndox moom wax nañ ko tudd nañ ci ñaari aaya alquran ndox mu jógee asamaan laab na te mën a laabal waaye glace gu joge asamaan bu seeyee lay laab te mën a laabal neige bu jógee ci kaw ma ne asamaan it ci kaw rek laa bëgg wax bu ñetteel ba mbokk yi ci ndox yi nga xam ne dañoo laab te mën a laabal mooy maa ul uyuuni wal yanaabiya maa ul uyuuni wal yanaabi euh, ndox yi balle ci suuf mooxam ndoxum teen la teen ba teenu siyaan la wala teenu goj la moo xam ab robinet fontaine la fekk ci biir suuf la jóge ab forage ndox moo xam ne dañoo gas suuf ak lu mën a saf bu dee dañoo gas ba fekk ci biir suuf loolu laab na te mën a laabal ndax suñ borom jalla wa ala alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i maa'an fasalaka fasalakahu yanaabi'a fil ard xanaa xamoo ni yàlla sa boroom moom moo wàccee ndox mu jóge kaw mu daadi koy dugal ci biir suuf si mu génnaat jaar ci ay bët jaar ci ay balluwaay kon ñu jàppe ci ni mi jóge ci biir suuf di balle ci biir suuf muy teen siyaan forage ndox yooyu daal laab te mën a laabal même bu dee ni am na lu mu saf comme daa jóge ci biir suuf rek laab na te mën a laabal mbokk yi bokk na ci xeetu ndox yi laab te mën a laabal maa ul bax ndoxum géej ak lu mu saf-saf-saf xorom wala tey mu doon géej gu lewat géej dex guy wal ab déeg bu mag yooyu yëpp daa laab te mën a laabal mën nañ ci jàpp mën nañ ci sangu farata ndax xadis abi hurayra radiallahu anhu qaal saala rajulun innabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala ya rasul allah inna narkabu albahr wa naxmilu maana alqalila min alma fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bimaa'i albahr fa qaala rasulu llahi sallallahu alayhi wa sallam huwa attahuru maa'uhu alxillu maytatuhu dañoo jële ci abu hurayra radiyallahu anhu mu dañoo laaj yonent bi benn waay dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko yow yonent bi yàlla bi ñun de dañuy tukki di wari gaal di sóobu ci bi géej gi dañuy yóbbuwaale nag suñu ndox moo xam ne naan la ak pour togg Euh, tukki bi dañ fay yàgg def fay fan ndox moom ñu yóbbuwaale def ko ci suñu gurt suñ ko jàppee mbaa ñu sangoo ko farata kon de dinañu mar dinañ mar te dinañ ko aajowoo ci suñu togg ñu ni nag léegi suñu laaj mooy ndax ñun bu julli jotee mën nañoo sangoo ci ndoxum géej mi wala ko amoon janaaba ci ñun wala sangu farata mën naa sangoo ca ndoxum géej ma yonent bi sallallahu alayhi wa alihi tontu ko ni ko géej mooy ndox ma nga xam ni laab na ta laabal waaye la dee ca géej mooy mbedd mu dagan la dee ca géej mooy mbedd mu dagan ñoom ndox lañ ko laaj mu tontu leen waaye xam nañ ne kuy laaj ndox ndoxum géej man naa jàppam déet yow la ngay gën a aaja woo xam mooy la dee ca biir géej ga moom ndax dagan naa lekk te noona ñuy aaja woowee ndox noona la ñu mën a demee ba aaja woo tamit lu ñu lekk ndax la ñuy lekk mën naa jeex ñu gis jën judee bay tëmb te aaja woo nañoo xam ndax jën booba dana na lekkam déet moo tax mu tontu leen ba yokkal leen ci huwa tahuru ma uhu alxillu maytatu géej mooy la nga xam ne laab na te mën a laabal waaye mooy na la nga xam ne lii médd mit dagan naa lekk mhm. mbokk yu tedd yi bokk na ci ndox yi laab te mën a laabal ndoxum zëm-zëm waaye ndoxum zëm-zëm li waral moom it koy jàng fii mooy xel mën naa daj ni ah ndox mi tedd na tedd goo xam ni ëpp naa jàppe wala ëpp naa sango janaaba ndax barkel gu mu barkeel ak aajowoo gu ko nit ñi aajowoo ci di ko naan ak di ci barkeelu <coughs> ndax ndox moomu <coughs> fit daj na di ko jàppe mbaa koy sangoo waaye ñu xam ne dañ koy jàppee di ko sangoo nag lima sabata min riwayati ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daa bi sajlin min maai zamdam fa shariba minhu wa tawadda ndax wér na ci sunna ni ali ibn abi talib radiyallahu taala anhu moo ko riwaaya mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laajte ñu andil ko baagu ndox bu fees dell bu ñu jukkee ci teenu zëm-zëm mu daal di cay naan daal di cay jàpp kon ñu xamee ci ni ndoxum zëm-zëm li muy tedd tedd li muy barkeel barkeel moom it tamit mën naa jàpp mën naa sangu farata mbokk yu tedd na ci xeetu ndox yi nga xam ne dafa laab te mën laabal mépp ndox moo xam ne mii cafkaam walla meloom dafa soppiku ndax yàgg ca ndab la mu nekk mbaamu mu jaxasoog lu làpp loo xam ne lii kenn mënu leen a teqale ñoom ñaar kom ay xobi garab walla lu demee ni saabu walla bol bol sunguf almaul ajin al mutaxayyiru bi tuulil mukk ndox moo xam ne mi yàgg fa mu nekk daa tax cafkaam wala meloom soppiku te rekkeegu ca turu ndox ndox moo defoon te ci ab bërigo bërigo bu set mu yàgg fa ba mujj mu saf caf ka këf këws wala mu jaxasoog lépp lu laat loo xam ne lii kenn mënu leen a teqale comme njàndam yu verte yooyu nga xam ne day juddoo ci ndox soppi na caf kaga wala melo ka melowa wala muy siyaan boo xam ne ak garab ay garab ko tiim xob ya rot di ca tàbbi mu dem ba ndox mi daa di jël caf kag xob ya wala ndox moo xam ne mii dañ koo def ci lu demee ni beñ waar mbaa siwo ah, caf kag saabu di ca saf waaye rékkeegu ca melow ndox rékkeegu ca turu ndox wala ndox moo xam ne lu demee ni sunguf bol moo ca tàbbi soppi tuuti ca melowa loolu tamit dafa laab te mën a laabal <coughs> feek turu ndox waa ngi ca des ba léegi <coughs> loolu li koy tegtale mooy xadis ummi atiya radiyallahu anha qaalat daxala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xiina tuwuffiyat ibnatu fa qaala igsilnaha talaatan aw xamsan aw akthara min dalik in raaytunna bimaai wa sidr wajaalna fi l axirati kaafuraa fa ida faraxtun fa aadinnani falamma faraxnaa aadannaahu fa aataanaa xaqwahu aw xiqwa fa qaala ashcirnaha iyaah taani izaara dañuy jàng ci xadis bii nii lu demee ni saabu wala eau de javel nga ubbi robinet bi mu saf eau de javel wala lépp lu laab loo xam ne lii dafa soppi melaw ndox ma wala cafka ga wala xet ga waaye rekki wu ca turug ndox ba léegi ndox lañuy wax meew bu soppi woon ndox tey ba mu ëpp dootul tuddati ndox mais dañ koy tudde njar wala ñu tudde ko meew mi ay légumes su soppi woon melow ndox ba soppi ga ëpp bu ma waxe ay melaw ndox mooy cafka ga wala xet ga wala couleur ba melowa bu ko soppi woon ba mu ëpp dootu ñu ko tudde ndox waaye dañ koy tudde ñeex waaye bu dee da ko soppi te ba léegi ndox la ñuy wax kooko laab na te mën a laabal bu dee la ko soppi lu laab la la koy tegtale muy xadisa ummi atiya radiyallahu taala anha mu ni ñoom soxna ya ba ñuy sangu ab doom bu jigéen doomu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zeynab la ba mu faatoo radiallahu taala anha yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf leen a wax yéen ñoom soxna ya ni leen na ngeen ko sange ñetti ndox wala juróom wala lu ko ëpp su jigéen gisee ni jar na ko waaye nag bu ko ëppee bu ëppee juróomi yoon it buñ koy yamalee nañ ko tóolal bu ngeen koy sàng na ngeen ci def li ñuy tudde sidr nab nabqi ak garab la goo xam ne gi day fuur day fuur tey bu doon seen jamono bi daa mel na da ngay wax ni nañ ca def saabu wala ñu def ca omo wala kotal wala madar wala xeet yooyu nga xam ne day fuur te mën a setal mu ni na ngeen ci def ca ndox ma kaafuur kaafuur ci xeetu parfum yi la moom itam lu mën a setal la loolu liñ ciy jànge mooy ni yooyu nga xam ne dafa laab ay eau de javel ay omo ay saabu ay kotol ay madaar yi nga xam ne seetal lañ ca jublu bu jaxasoo woon ndox ba soppi melowa wala xet ga wala cafka ga waaye rekkiwu ca tudd ndox bu boobaa day laab tamit a laabal loolu rek la ñuy jàngee ci xadis soo continuer di ngay gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon na leen koddaayam yëreem bu mu daan sol ni leen bu ngeen ko koy sànge na bii leen jox féeteeg yaramam te su ngeen paree ngeen yëgal ma ñu yëgal ko wàllu jullee ga ak xadis ummu hani radiyallahu taala anha boo xam ne dañ ciy jàngee ni sunguf walla bol wala sanqal yooyu bu jaxasoog ndox ba soppi melowa wala xet ga wala caf ga ga waaye rékkiwu ca turu ndox bu boobaa tamit day continuer laab ta mën a laabal ummu haani qaalat inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam iqtasala wa maymuna min inaa'in waahid fi qas'atin fiiha atharul ajiin ummu haani bintu abi talib radiyallahu taala anha mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak soxnaam maymuna bintul xaaris alhilaaliya radiallahu taala anha ñoom ñaar bokk nañ sangu di tànqe ci ndox moo xam ne mi mi ngi nekk ci am ndab ndab lu mag mooy xasan ah, lu demee ni booli te foo ndox maa nga am ay desitu bol desitu sunguf lidalika qaala ibnu xazm rahimahu llahu taala fi kitaabihi almuxalla qaal wa kullu ma in xaalatahu shay'un mubaaxun taahir fa dahara fiihi lawnuhu wa riixuhu wa taamu illa annahu lam yuzil anhu isma almaa falwuduu bihi jaiz walguslu bihi liljanabati jaiz rahimahu llahu taala wa qaala burhaanu dalika qawluhu taala falam tajiduu maan wa hada maaun sawaun kaana alwaaqiu fiihi miskan aw asalan aw zafaraanan aw gayru dalik intaha kalaamu rahimahullahu taala al imam ibnu xasb rahimahullahu taala dafa wax ni mépp ndox moo xam ni dafa jaxasoog lu dagan lu laab ba xaw a soppi caf ka ma wala xet ga wala melo bu ma waxee melo muy couleur ba waaye ba léegi ma ngay tudd de loola ta loola laab la ko la ko soppi lu laab lu dagan la ndox mooma dagan naa jàppe dagan naa sangoo farata lay dalil ba koy tegtale moo qawluhu taala la sëj borom jalla wa ala waxoon ni falam tajidu dafa ni woon bu ngeen amul ndox tiim te lii ndox la donte parfum bu ñu tuddee misk wala lem wala beneen parfum bu ñu tuddee zafaraan bu la neexee nga continuer wala lu ñu tuddee kotal wala madaar wala sabu wala eau de javel yooyu yaa ca tàbbi ba soppi meloo wala xet ga wala cap ga ga waaye rekki wu ca turu ndox loolu day daal di dagan niki noonu bu doon dafa nekk ci bërigo nekk ci benn defukaayu ndox ba caf kaak ba mu nekk feeñ ca caf feeñ ca caf ndox ga ma wala meloom wala couleur am du mu mën a laab mën a laabal lay dalilam mooy xadis abdullah ibnu zeyd radiallahu anhu qaal ataa rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa axrajna lahu maan fi tawrin min sufr fa tawadda fa gasala wajhahu talaatan wa yadayhi marratayni marratayni wa masaxa bi rasihi fa aqbala bihi wa adbar wa gasala rijlayhi Ah, Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu dafa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw ba fi ñun ñu daal di koy rootal ndox ci ab defukaay tawru shibhu tast mooy lu demee ni satala lañ ko defal ndox wala ab pot rek ñu ngi ko tànqe ci asufr an nuxaasul jayib defukaay boo xam ne bii xeetu përëm la comme paan paan waaye cafka ga da cay feeñ mu di mu daal di jàpp ca ndox mooma mu jàpp ca ndox mooma loolu mooy li ñu li ñu gën a utile ci xadis Abdullah ibn Zayd bi waaye wax na ba tey ni mu raxas kanamam ñetti yoon raxas ay ñaari loxoom bu ci nekk ñaari yoon masa boppam ba muy masaa bopp ba mu wéyale ay loxoom ba ca doqam ca ndong la laa bëgg a wax daal di leen indiwaat di raxas ay tànkam waaye loolu yëpp liñ ci gën a ñor mooy fa nga xam ni ndox ma taaju woon teel ndox ma saf cafkak defukaay ga kadalika xadisu Abdullah ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma da koy tegtale qaala bittu daata laylatin inda xaalati maymuna fa qaama annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli mutatawian min alleyl fa qaama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila alqirba fa tawadda fa qaama fa salla fa qumtu lamma raaytuhu sanaa dalik fa tawaddatu min alqirbati thumma qumtu ila shiqihi alaysar fa axada biyadi min warai dhahrihi ila shiqil ayman hadis bi liñ ci bëgg a jànge mooy ni defukaayu ndox moo xam ne mii ndox ma mën naa jël cafkak defukaay googa loola terewul ndox ma laab te mën a laabal comme ndox mu nekkoon tey ci bërigoo yàgg ca ba jël cafkak këwsu këwsu ba ko tere laab te mën a laabal Abdullah ibnu Abdullah ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma dafa ni woon dama fanaanoon ci néegu sama tante Maymuna Maymuna tantam la ndax moo yaayam Ummul Fadl ñoo bokk Maymuna di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxnaam si mujj a denc ay lu mat ay ñetti weer la ñu nekk Maymuna bintul Xaaris al-Hilaaliya taala anha di doomu baayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax seen ñaari baaye bokk baay Abdul Muttalib Abdullah ibn Abbas ne sama tante fanaan fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga fa mu ni ca guddi la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa di julli julli guddeem mu jóg dem ci menn mbuusu ndox mbuus boo xam ne bii deru bàyyi ma lay doon ñu ñaw ko sol ca ndox mbuus yooya bu yàggee ndox ma mën naa jël cafka defukaay ga defu derba maanaam derba ci boppam ba nga xam defukaayu ndox la ndox ma mën naa jël cafka ga mu daa di jóg daa di cay wut ndox nee na ba ma gisee na mu def man itam ma jóg daa di jàpp ca defukaayu ndox booba muy xirba ba ma daa taxaw ci côté càmmooyam nit bu la dee jiite te yéen ñaar ñëpp yéenay jullee ndoo war a taxaw ci càmmooyam moom dafa xamul mu taxaw ci càmmooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy jiite nee na mu daal di may xëcc andi ma ci côté nday jooram foofu la war a taxaw waaye fii liñ ciy jàngee mooy ni fa mu roote ndox ma muy muus muus ma ah ndox ma mën naa caf mën naa saf caf ka googa wa kadalika xadisu anas ibni malik radiallahu anhu qaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida xaraja li xaajatihi ajiu ana wa gulaamun wa gulaamun maana idaawa min ma yaani yastanji bi anas ibnu malik radiyallahu anhu mu ni man mi ak beneen xale ñoo daan yoral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ndabal ndabal defukaayu ndox su waree faj aajoy doomu aadamaam ñoo ko koy jottali maanaam bu paree ca lay raxasu ndab loola man ndox ma mën naa jël cafkaam te du ca yàq dara bu fekkee yëkki wu ca turu ndox mbokk ba tey bokk na ci ndox yi laab te mën laabal ndox moo xam ne mii sobe da caa tàbbi waaye rékkiwul cafka ga rékkiwul melo wax muy couleur ba rékkiwul maanaam cafka ga feeñu ca cafka sobe ba feeñul ca ndox ma melo sobe ba feeñul ca ndox ma xeetu sobe ba feeñul ca ndox ma li gën a wér ci waxu borom xam-xam yi mooy ndox moomaat bu fa sësee dañ cay jëfandikoo fa an abi saidin alxudri radiallahu anhu qaal samitu rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam wa huwa yuqaalu la innahu yustaqa laka min bi'ri budaa wa hiya bi'run yulqa fiha luhumu alkilaabi walmahaayid wa udaru annaas faqaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam inna almaa tahurun laa yunajjisuhu shay said ibn said al Abu Saïdin al-Khudri Saad ibnu Malik ibnu Sinaan radiyallahu anhu dafa ni dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis aw nit naan ko yow de yëgal ni daan la rootale ndox ca teen booba ñuy wax budaa di nga laaj ndox ñu dem fa rootale rootale la foofa teenu budaa te loolu teen la woon boo xam ne ay mbéd daan nañ ko ca saan sànni ak njiit laa yi jigéen ñi jiital bu ñu dee gis deratu mbërëg mbaa meret ak ay salte il nga xam ni ñoom dañoo ñàkkoon ndox dañoo ñàkkoon ndox lool arab ñàkk ndox daana leen yóbbu ci bu ñu dee tukki dañuy jël ak gëléem wëgg ko mu naana naana naana naan giléem suñ borom jàlla waala da ko defa ab réservoir ci mbàq ga boo xam ni na caa denc ndox mu baree bare lu mat une semaine ba fukki fan su maree da koy génnewaat ba ci put gi mu naan ko ndox mooma boo ko rendi woon tey fees ko génne mbuus ndox mooma ca mbiir ba ca biir ba moo gën a sell balaa mu cay dugg moo gën a sell sax ndox mu nekk ci firigo afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat ñoom aajo woo ndox daan na leen jaral rendi giléem moo tax buñ aajo woo ndox teen buñ leen mën a rootale dañ koy jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko daan wutali ndox ci biiru budaa te biiru budaa wax naa la la ca xew ay salte ca daa taabal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ndox dara sobeelu ko waxaat na ci beneen xadis ida balaga al maau qullatayni lam yaxmil il ndox su xasee ñaari mband yu mag a mag ñaari mband yu mag a mag boo ko doon xool ci jamono bi boo leen boolee ñaari mbànd mbànd mooy ndaalul mag soo leen boolee day mat trois cent vingt litres mu ni ndox su ma see xasee mat noonu sobe waaj sobe yàqatu ca dara loola mooy su soppiwut melowa soppiwul xet ga soppiwul caf ga ga qaala imaamu rahimahullahu taala wa amma xadiisu qullatayni fa gaayatu ma fihi annama balaga miqdaar alqullatayn laa yaxmilu alxabas fa kaana hada almiqdaar laa yuassiru fi alxabas fi gaalibi alxaalaat fa in tagayara baadu awsaafi kaana najisan bil ijmaaci thaabit min turuqil min turuqin mutaaddida wa amma ma kaana duna alqullatayn falam yaqul alshaaric innahu yaxmilu xabasa qatan wa battan bal mafhumu xadiisi alqullatayn yadullu ala anna ma duunahumaa qad yaxmilu xabas wa qad laa yaxmiluhu fa ida xamalahu fala yakunu dalika illa bi taxayuri baad awsaafi xam nga dafa am xadis bu wax ni ida balagal maa u qullatayni lam yaxmil al xabas ndox su xasee mag ñaari mbànd yu mag doo euh, soobee du ca amati jeexital soobee dootu ca jeexital loolu am ñu ca déggee ni kon ndox mu matul ñaari mbànd yu mag yooyu man la boo leen boole woon trois cent vingt litre lay doon am ñu ca déggee ni kon sobe su ca tabbi même bu dee ni rékkiwul melowa wala rékkiwul xet ga wala cafka ga ndox mooma dootul mën a laab loola nag njumte la ndéggin woowu njumte la loolu la imaamu Shawqaani rahimahullah taala naan xadis bay wax ni ndox su matee ñaari mbànd sobe dootu ci am jeexital hadis ba kët la mu bëgg a wax yépp mooy ni ndox mu tol noona gën caa bare sobe dootu bu ca tàbbee du ci am genn jeexital bu fekke rekkiwul cafka ga wala melowa wala xet ga waaye kenn du ca déggee ni ndox moo xam ni matul ñaari mband yooya sobe bu ca tàbbi te rékkiwul dindiwut maanaam cafka ga feeñu ca xet feeñu ca nelawoo feeñu fa kenn du ca dégg ni ndox mooma deesu ko jëfandikoo ci déedéet loolu nekkul ci xadis bi moo tax ndox moomu imaamu zuhri muhammad ibnu muslim ibnu shihab az-zuhri rahimahullah taala dafa ne laa basa bil ma maa lam yugayyirhu taamun aw riixun aw lawn ndox daal feeg cafkaka sobe soppikuwut wala melowa wala xet ga ndox ma dara nekku ca bu soppi ko nag la ko soppi bu dee ndox mu laab lu laab la lu laaba soppi cafka ga wala melowa wala xet ga wala ñett yëpp waaye rekki wu ca turu ndox loola dara nekku ca laka soppi la soppi benn ca melo bu dee sobe la ndox ma baaxut bu dul sobe ndox ma baax na mbokk yi bokk na ci ndox mi nga xam ne laab na te mën a laabal almaa ul ndox mu ñu jëfandikoo moo xam dañ caa mu des wala ñu saggu ca farata ah walla ñu saggu ca farata lu dul yaramu nit ki daa amoon sobe mu dugg ca biir ndox ma bu boobaa bu soppee benn ca ñett yooya ndox moomu ñu jëfandikoo day daal di soppi waaye ndox mu jëfandikoo moo xam ku ko jëfandikoo góor la walla jigéen la ndox ma des fa ka koy jëfandikoo waat na góor nay jigéen la gën a wér ci masala moom mooy ndox ma laab na tamana laabal li adillatin kathira jiddan minha ma rawahu urwa an il miswar wa gayri yusaddiqu kullu waxidi minhuma saaiba qaala wa ida tawadda annabiyu sallallahu alayhi wa sallam kaadu yaqtatiluuna ala wadui urwatu urwa daa nettali ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma taana jàpp ba ndox ma des saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañuy bëgg a rayante ci xëccoo desitu ndox ma di ko jàppe di ko ray seen yaram di ko barkeeloo bu fekkoon ndox moomu munu ta jàpp ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ko naam desitu ndoxam ñu koy ñu koy barkeelu loolu moo ko jagoo desitu ndoxam ñu koy xëccoo di ca barkeelu kooku moom rek a ko jagoo ndax ñoom ña ko doon defal yonent bi sallallahu alayhi kenn toxalul ni defal nañ ko magi saxaaba ya ñu xamante ni kon ñoom moom moo ko jago waaye jàppee de surtout ndoxu nit moom jagoowu ko wa an ibni abbas radiallahu anhuma qaal irtasala baadu azwaaji nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi jafnatin fa jaa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam li yatawadda minha aw yaxtasil fa qaalat la ya rasulallah inni kuntu junuban fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innal maa la yujnib Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma mu ni ñeen kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa ala wa sallam wa radiyallahu anha dafa sangoo ci ab booli ab ndab ab beñuwaar mu defoon ndox ndox ma des yonent bi sallallahu alayhi wa sax nga xam ne da caa bëggoon a sangu farata soxna soosa radiyallahu taala anha ni koy ah ya rasulallah man de dama amoon janaaba te ci ndox mi laaj sangoo ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa alihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko ndox mi moom amul janaaba wa an abi saidin alxudri radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yuqaalu lahu innahu yustaqa laka min bi'ri budaa min bi'ri budaa wa hiya bi'run yulqaa fiihaa luxuumul kilaabi wal maxaayid wa cudara annaas fa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay xadis boobu dawlu woon na fi muy xadis Abdullah ibn Abu Saïd al-Xudri Saad ibn Malik ibn Sinan radiyallaahu anhu mu ni dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bañ koy wax ni ko yow kët teen boobu ñuy wax biiru budaa teenu budaa dañ la fay rootale ndox te ku ne xam na ni boobu ni ña dañ fay sànni ay salteek ay méd xaj mu bu deek eh, ay njit lay jigéen yent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox lu laab la dara mënu koo sobeel loola mooy féeg sobe booba ca tab bi soppiwul cafka ga wala meloga wala xat wala xet ga wa ani rubaya bintu muawiz radiallahu anha fi wasfi wadu'i rasulillahi sallallahu alayhi wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam masaha bi ra'sihi min fadli ma in kaana fi yadi Rubayya Rubayya ibnu Muawiz radiyallahu anha ba mu ñuy jàngal jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ko gisee woon dafa ni bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tooy tooy yi nekk ci loxoom raayaat na ci ñaari tënkam masaawe ko boppam kooka dañ cee jàngee ni desitu ndoxum jàpp mën nañ caa jàppewaat wa an abi hurayra radiyallahu anhu qaal laqiyani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana junub fa axada bi yadi fa mashaytu maahu xata qaat fansalaltu fa ataytu raxl faghtasaltu summa jitu wa huwa qaa'id fa qaala ayna kunta ya aba hurayra fa qultu lahu fa qultu lahu fa qaala subhaanallah ya aba hurayra inna almu'mina laa yanjus abu hurayra radiyallahu anhu dafa ni bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man te nee na booba maa ngi am janaaba mu jàpp sama loxo téye ci sama loxo ba ñu bokk toog ma jékki-jékki rek yolliku rocc ku ndànk ni mes dem ca tookóor ba place bu nëbbatu ma daa fay sangu ma daa di ñëwaat toog mun ma waaye Abu Hurayra dama jékki-jékki gisatuma la foo nekkoon mu ni ko mu ni ma wax ko ko maanaam mu wax ko ni moom dafa amoon janaaba te bëggut a toogaaleeg moom fekk mi ngi am janaaba moo tax benn riwaaya dafa ni kuntu junuban fa këritu an ujaalisaka wa ana ala gayri tahaara noonu la ko imaam Buxaari génne mu ne damaa amoon janaaba te bëggumaa toogaale yow fekk man laabuma duma ko laab moo tax man rocc ko dem sangu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di màggal yàlla ni subhanallah waxi waxi ku yéemu yow Abu Hurayra jullit amul sobe loolu liñ ci bëgg a jànge comme jullit amul sobe bu jàppoon ci ndox ma de ndox ma des keneen ku ñëw ku ne mën nga caa jàpp wala nga sangu ca ka kadaalika bu sangu woon ci ndox mu des ku ne mën nga caa jàpp wala nga sangu ca qaala ibnu qudaama wa li annahu maaun taahir laa qaama xallan taahiran kalladi gasala bihi thawbu taahir ndox mu laab la moo xam ni barab ba mu laalanteeloon ca njàpp ma wala sangu ba yaram wa daa laab ba léegi mën nañ koo laab wa qaala mën nañ koo jàppee mën nañ koo sangoo mën nañ koo jàppee de surtout ndox moo xam ni nit da ca sangu wala da caa jàpp wa qaala aydan wa li annahu law xamasa yadahu fi lmaai lam yunajjisu walaw massa shay'an rotban lam yunajjisu comme jullit même bu amoon janaaba waaye yaramu jullit feeg taqul sobe yaram wa daa laab bu ko sooboon ci ndox it bu génnee desitu ndox ma dañ koy jëfandikoo dañ koy jëfandikoo ci wàllu laab dañ koy jëfandikoo ci wàllu laab naam mbokk yi bokk na ci ah, dalil yu bare bare daal tekkale na masala moom bokk na ci ndox yi nga xam dafa laab te mën a laabal ndox mu ñu tàngal yooyu yëpp boo déggee ñu koy wax nag dafa am ñu koy bañ wax di boo jëloon ndox tàngal ko ci naaj wi dootul mën a jàppati waaye ndox mu mënti doon ak foo ko mën a tàngalee da nga koo teg ci gaz beeg da koo teg xam ko ca matt maag doonte saxaar ma ngay xeej da nga ko xamee ca ndox ma tàngal ko xeej na xetuk safaar xaar saxaar wala cafkaam du tere mu mën a laab faqad sabata an omar radiyallahu anhu annahu kaana yusaxan lahu lmaa fi qum qum أو قمقم نعم قمقم بضم القعفين ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس lu ñuy daan tàngalee ndox la loo xam ne dañ koy defe dañ koy defare xeetu xànjar comme satala yi ko ñu ni Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tàngalal nañ ko ci ndox mu sangoo ko waaw kon mépp ndox moo xam ne mi dañ koo tàngal dañ koy dañ koy dañ koy jàppe wa sabata aydan annahu kaana yaxtasiru bil xamim daan na sangoo ndox bu tàng xadis dafa ñëw bu wérut bu naan laa taxtasilu bil maa il mushammas fa innahu yurithu l ba wérut lay wax naan bu leen sangoo ndox mu ñu tàngal ci jant bi ndax day joxe jàngoro juñ naan baras loola du lu mbokk yi bindu bi mooy axkaamul miyaah aqsaamul miyaahi wa axkaamuha xeeti ndox yi am ak seeni atte wax nañ ñetti xaaj la ndox am mooy ndox mu laab te mën a laabal loolay xaaj bu njëkk am na juróom-ñaari ndox ndox xaat ndoxin ay xeeti ndox yuy dugg ci xaaj boobu xaajub ñaareel bi almaa ut taahir gayrul mutahir ndox moo xam ne laab na waaye mënta laabal wa huwa kullu ma in xaalatahu taahirun fa gayyara ahada awsaafihi salaasa allawnu aw taam aw riix ndox mu laab waaye mënta laabal mooy bépp ndox mu laab moo xam ni leneen lu laab moo soppi cafkaam walla meloom walla xetam soppi goo xam ne rékki na ca turu ndox tuddatul ndox léegi kay njar mi ngay wax wala ñeex mi noonu nga koy waxe waaye dootoo wax ndox mi kooku moom ku mu takkoon say sër boo ko julli waalee taraxa soo ko julli ga baax na waaye bu sër ya amoon sobe ñu sotti ko ca dindiwul sobe ga ak la ko lu mu mën na doon ci loo xam ne lu laab la ah? ci loo xam ne lii lu laab la loola day def ndox ma dootul mën a laabalati waaye moom ci boppam ba léegi lu laab la <coughs> qaala alimaamu albuxaari raximahu llah fi saxiixi baabun laa yajuuzu alwuduu binnabiz wala almuskir wa karihahu alxasan wa abul aliya imaam albuxaari rahimahullahu taala dafa wax ci saxi am ne lii bunt la boo xam ne dañ cee bëgg a jàngale ni daganul kenn di jàppe nabiz tey boo ni woon njar nabiz dañ daan xoot loo demee ni reesin wala tàndarma ba mel ni jus boo ni woon tey wala nga ni njar kooku amul loo jàppe doo ko jàppe wala lépp loo xam ne day mandéele mooy xeetu boisson yi kenn mun ko jàppe mun loolu doonte laab laab na dees ko jàppe wa an abi xalda rahimahullah qaala sa'altu abal aaliya an rajulin asaabathu janaaba wa laysa indahu maa wa indahu nabiz a yaxtasilu bi qaala la abu xalda rahimahullah neen damaa laaj abul aaliya ni ko benn waaye ngi boo xam daa am janaaba waaye moom amul ndox mu jàppe mu am lu mel na am njar wala boisson ndax mën na ko jàppe mu ni déedéet loolu laab na waaye mënta laabal wa an ata annahu kariha alwudua billabani wannabis wa qaala inna tayammuma ajabu ilayya minu ata rahimahullahu taala dafay tere ak borom xam-xamul islam yépp kooku ñëpp dëppoo nañ ci dañuy tere nit di jàppee lu demee ni meew nit mënoon naa ñàkk ndox te am bërigoy meew wala bërigoy jus jus wala barigo njar kenn du ko jàppee loolu lu muy def bu fekkee amul lu mu jàppee day dem tiim ndax suñ borom jalla waala dafa su amul ndox te moom mi amul ndox li am kay jus la wala leneen la waaye tuddatul ndox qaala abu isa tirmidi rahimahullah wa qawlu man yaqulu laa yutawaddau binnabiz aqrabu ila alkitaabi wa ashbah li anna allaha taala qaala fa lam tajidu maan fa tayammamu saidan tayiba imaamu tirmidi rahimahullahu taala dafa ni boroom xam-xam ya wax ni ay xeeti jus ak boisson yi ak yi nga xam ne dañ caat def lu laab ba mu rékki turu ndox ma tuddeetuñ ko ndox ña wax ni kenn mënu caa jàpp seen wax a gën a dëgër te alquran ak sunna moo gën a dëppoog ñoom la ñuy wax ndax suñ borom jalla waala dafa bu ngeen amul ndox nangeen ngeen dem tiimi te kii amul ndox kii amul lan amul ndox naam mbokk yi dañ leen li jàng tey mooy àttey ndox ndox ñetti xaaj ndox ñetti xaaj la ndox mu laab te mën a laabal ak ndox mu laab waaye mënta laabal xaajub ñetteel ba mooy ndox moo xam ne mi dafa sobew ndox mu sobewu nag wa kullu ma'in taghayyara bi muxaalatati najisin aw an tughayyara najasatu tughayyiru aw tughayyiru najasatu ta'mahu aw lawnahu aw riixa wa hada laa yajuuzu tataxur bi bi ijmail ulama xaajub ñetteel bi mooy bépp ndox bu sobewu ndox bu sobewu mooy ndox moo xam ne daa jaxasoog sobe ba sobe ba soppi cafkaam wala mu soppi meloom wala mu soppi xetam ndox moomu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ni sobe la kon kay kenn mënu ko jàppe wala kenn mënu koo sangoo waxi noppi moom ci boppam kumu mu laaj laaj ko laal da koy dindi ci yaramam ak séram ak barabam ba muy jullee su ko dindiwul bu jullee amul julli qaala cheikhul islam ibnu taymia rahimahullahu taala fi majmuci lfatawa qaala almaau ida tagayara binnajasat fa innahu yanjusu bilittifaq imaam ibnu taymiya rahimahullahu taala nee na ndox su fekkee sobe moo ko soppi soppi na cafka ga wala melowa walla xet ga boroom xam-xami lislaam yépp dëppoo nañ ci ni ndox moomu sobe la moom ci boppam te buñ ne sobe la kay kenn xalaatatut ndax manees na koo dindee sobe boo ko sottee ci sobe kay da yokk sobe ba waaye mënu koo dindi wa qaala sanaani rahimahu llahu taala fi subuli salaam qaal qaala almunzir qaala ibnu lmunzir ajmaa alulamaau ala anna almaa alqalil walkathir ida waqaat fihi najasa fa gayyarat lawnahu fa gayyarat lahu taaman aw lawnan aw riixan fa huwa najis imaamu Sanaani rahimahullahu taala dafa wax ci téeréem bi tudd subula salaam toxal jële ci ibnul munzir rahimahullahu taala boroom xam-xam booba nee na boroom xam-xamul islaam yépp dëppoo nañ ci ni ndox bare na wala tuuti na su ca sobe tàbbee soppi melo wa wala cafka ga wala xet ga boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ni ndox moomu dafa sobewu dafa sobewu mbokk yi suñu émission bu njëkk bi muy suñu dars bi doon wax ci ak aqsaamul miyaahi wa ahkaamuha xeetu ndox yi ak atte bu ci nekk dars bi jeex na foofu la yam foofu la dars bi yam ci gàttal dañ ni ndox ñetti xaaj la bu njëkk ba mooy ndox mu laab mën a laabal ndox mu laab mën a laabal mooy ndox moo xam ne daa des ca na ko yàlla bindee woon te loola buñ ko waxee ay xeeti ndox yu baree bare dana dana dugg ci wax jooju mën nañ caa tudd ndoxum taw tudd ca lépp lu jóge kaw ca saanam ndox la woon su seeyee loolu nag buñ ko waxee ñu ngi ci jublu glace wala neige wala lay lay bii soo ci mënoon dajale loo jàppee kooku ndox mu laab te mën a doon tuddu nañ ca bépp ndox mu jóge biir suuf balle biir suuf daa jóge ca forage ba wala ca robinet ba wala ca teen ba wala ca siyaan ba tudd nañ ca ndoxum géej ak géej gu mën ci doon ci àdduna saf na xorom ak ak lu mën a saf ak saful dara yëpp a yam tudd nañ ca ndoxum samsam waaye boobu sell gum la moo tax ñu ni daañ ko tudd ndax xel mën naa dañ ni sam zam kë ëpp naa jàppee wala ëpp naa sangoo tudd nañ ca tamit bépp ndox moo xam ne mii la mu dëkkaaleel moo soppi caf ga wala melo ga wala xet ga te kenn mënu leen a teqale muy ay xobi garab wala ndab lañ ko defoon wala saabu wala eau de javel wala kotol wala oma feeg turu ndox la te rekkeegu ca tur woowa laab na te mën a laabal tuddoon nañ ca kadaalika mbokk yi ndox moo xam sobe da caa tàbbi moo xam ndox ma bare na wala bëriwut waaye euh, soppiwul melo wa sobe ba soppiwul melo wa soppiwul cafka ga soppiwul xet ga moom laab na te mën a laabal tudd nañ ca ndox mu ñu tàngal ndax xadis bi wax ni ndox mu ñu tàngal ku ko jàppee day joxe feebar xadis ba wérul yooyu mooy ndox yi laab te mën a laabal ndox moo xam ne mii laab na te mënta laabal mooy ndox moo xam ne mii lu laab moo ko soppi waaye dafa riit ki ndox ma ba nga naan ñeex wala nga naan jus wala nga naan euh, njar bu ñetteel ba mooy ndox moo xam ne mii dafa sobewu mooy dafa jaxasoog sobe ba sobe ba soppi melowa wala xet ga wala caf ga kon loolu moo doon bindi bi borom bi jalla waala yàlla na ma ci jariñ jariñ leen ci hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa wala alihi wa ashabi ajmain subhanaka la ma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim ngeen àndoon ci seen mbokkum taalibe bi ak seen mbokkum daara bi hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain